ngeen déglu ma deux minutes may wax lu am solo lu ma ñor monsieur le préfet monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar ñu ngi jégalu waaye nag ba su wax rek la xam naa activité bi activité bu am ci Grand Dakar ñu ñëw comme ni nga defee te ci loolu ñu mës a nekk ci nekk ba toujours ñoom waa Grand Dakar di leen jàppale. jàppale jigéen ñi ndaw loolu la son excellence monsieur président de la république dans sa vision de faire du pays Sénégal un émergent en 2035 mu wàcc ay politique yoo xam ne benn bu ci nekk rek en tant ndawam en tant ministre la femme de la famille et de la protection jàpp ne suñu taxawaay ci Grand Dakar war na ëpp fii dañoo war a liggéey dañoo war a jàpp dañoo war a fexe ba améliorer condition de vie population Grand waaye suñu borom yàlla li nga ne moom moo moo dogal jàpp na ne jàppale bi incha allah dañ ko continuer ko def waaye ñoo ci mairie Grand Dakar. wax naa ko léegi yàlla defoon li mu def ba le 23 janvier balaa mi di ñu ne vive madame la maire de Saint-Louis waaye nag defe naa ne bu ñu yor majorité Grand Dakar kenn nattable wu ñu nii ñoo ko yor majorité dañ ko fee liggéey dañ ko fee dox dañ ko fee jëf naa jàpp naa quand il faudra choisir parce que bu waree choisir war a tànn defe naa du ma fi bàyyi tànn keneen da koy waaye nag ñu am kilifa kilifa bu mag kilifa boo xam ne liggéeyam Sénégal kenn ma tardé wu ko tey lu ñu mën ak li ñuy def lépp ci Grand Dakar moo tax. boo ne moo yor développement social yu réew mi yor jigéen ñi yor xale yi yor famille yi kon mu seetlu cër bu mag a mag commune Grand Dakar kon bu ñu nee madame la ministre dama bëgg Grand Dakar liggéey bi ñu koy def naa ko continuer di ko def ak waa Sandi parce que loolu laa la sant waaye nag comme vision laa am jàpp ne damay as ànd ak samay nawle war naa leen seen cër kenn du président Macky Sall ci borom ci bëgg réew ci fonk nawle xanaa nag bu toppee suñu xol bëgg nañu di ubbi suñu liste Grand Dakar waaye jàpp naa ne président de la lu mu sant nañu koy def ne waaw ñu ne waaw bu ne déet ñu ne déet su ne waaw na déet ñu ne waaw ne déet askanu Grand Dakar man aw ma seen fay gis naa bi gis naa engagement bi gis naa accompagnement bi xale bu gën a ndaw ba ku gën a mag ñu amoon espoir na Grand Dakar dina changer jàppoon ne su ma nekke yore maire bi dina am lu bari lu mu ko liggéey ci askan bi waaye loolu dara di mu ko parce que la coalition Benno Bokk Yaakaar est toujours présente dinañu liggéey ngeen jàppale monsieur le président de la république ba ndam li incha allah ñëw pour la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que Grand Dakar gis seen bopp li nga xam ne moom la askan wi bëgg incha allah nekk maire bañ a nekk maire la ñamale képp tant que bu mu yéeg yëkkati rek askanu Grand Dakar moo ñu ñor ci loolu la ñuy dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon. di remercier nag toute la coalition du ma daan nag remercier wu ma sama frère yi nga xam ci liggéey bi parce que bu ngeen ci Grand Dakar man maa tax ñu am monsieur le maire Dame Diouf du parti socialiste àndoon ak man ci coalition monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm